dañu fi ñëwoon tey euh, fii si Guédiawaye Wakhinane Nimzatt si invitation euh, chef de Turton pour vraiment célébrer le centenaire euh, de la convention de Genève. convention de Genève nag depuis 1929 la convention bi nga xam ne moo njëkk wax li nga xam ne mooy dem si àq ak yelleefu xale mais aussi convention bi njëkk a pointé du doigt responsabilité maanaam mag yi envers xale yi bu ñu nee responsabilité mag yi envers xale yi responsable communauté bi la famille la. nijaay yi la bàjjan yi la maanaam ñi nga xam ne ñoo seq yëpp xale yi ñooñu aussi dañ si am responsabilité moo tax convention bi am euh, solo ñun nag li nga lépp loo xam ne day jëmale kanam ak ak yelleefu xale ñun mënuñu see des ginnaaw lépp loo xam ne aussi mën nañ indi suñu xam suñu pexe ak suñu stratégie aussi yi bu amee dañu si woo comme ça ñu ñu ñëw représenté fii euh, nguur gi si mbirum li nga xam ne mooy dem si protection des enfants effectivement phénomène la xam ne ñun ñëpp dañ koy jànkonteel képp koo xam ne génn nga sa buntu kër li nga njëkk a gis mooy xale yi nga xam ne ñoo ngi ci mbedd mi loolu nag euh, ñoo ngi siy def ay liggéey bu am am ama solo jamono yi passé rek gis ngeen ko euh, su la coordination du ministère de l' intérieur defoon nañ fi ay série de déguerpissement de noyaux familiaux euh, te yooyu aussi stratégie yoo xam ne day continuer la day continuer la parce que phénomène boo xam ne bu yàgg la si biir société bi il faut que ñu jëm xool ñi nga xam ne ñëpp ñoo yëngatu si mbirum xale yi muy état muy organisation yi muy communauté yi muy maanaam famille yi ñëpp ñu booloo am benn plan d'action boo xam ne moo ñuy mën a permettre ñu euh, juguler maanaam phénomène boobu day laaj nag ay concert ay concertation parce que xale yi aussi boo gisee jóguñu rek ñëw si mbedd mi si ay kër la ñu jógee am nañu ay papa am nañu ay yaay am nañu ay tuteur képp xale boo ci gis si kër la daa ñu jëm a fexe ba xam xale yooyu exactement lan moo leen jëlee ci mbedd si kër yi indi leen ci mbedd bi pour mën a xool exactement déterminant yi nga xam ne moom la ñu war a teg sur la table ba mën a juguler euh, phénomène boobu loolu nag état yaafuusu si mu ngi siy def liggéey bu am solo te si biir ministère bi ñu ngi si def ay concertation te fi lekk euh, jamono yu ndaw di ngeen gis ne